ja tuuru na ca Ziguinchor mar day taali direct news de Ousmane Sonko day dañu koo daal di attaqué nag kon te Casamance googe la ilaha illallah te nag doon na amal kon ab ne am na gaañu-gaañu jam allahu akbar la ilaha illallah dama ne la sandante xeer ya ni tulleeg male ba le fetal ya tàkk na fa ñaari kan yëpp am na ca ñoo xam kon am nañu ay gaañu-gaañu Abdoul Mbaye waaw nee na jëf ñaaw un acte imbécile mar day taali la ilaha ña ko def seeni bopp dara nekku ca te kenn mënu koo nangu la wax les voyeurs kaay ne waa Pastef de waaw duudu moom la ñu de naroon naa gën a garaaw ca Ziguinchor sor laa wax en tout cas na de waaw waaw ci moo xam ne njiital Pastef ci boppam de waaw moo ko doon amal ak waa UNACOIS ca bu kot la nee nañ ca réunion boobee daal leen fet songu leen te ñu ngi laam-laamee kon waa kër duudu la Raphaël Bassène Pastef Ziguinchor nee na xaw ma mënti xewati ko waajal de bu baax a baax lu ñuy defati élection yi laa la wax moo tax Doudou Ka dafa bëgg a def kéemtalaay kàttanam ngir ay élection bu mu fi am waaye bu soobee yàlla danañ ko gagné de Doudou danañ la gagné de moom Doudou Ka moomee daal dinay lal dina ko tuuma yi nga xam ne moom lañ lal ci kawam moom ñi ma àndal waaw daal di tuumaal Ousmane Sonko mi ne moo fa yónnee ay mbër source aané en tout cas bi lay say na cortège su Doudou Ka ak Ousmane Sonko moom pro box fobili ne ay jàmmaarloo yu tar diggante ñi mi lé ak pro Sonko ñeenti doomu aadama am nañu ay gaañu la wax ñi ànd ak sandante xeer doolante ay kurpeñ jamante paaka balu fetal yi daal di fay dàkk allahu waaye ñoom ñaar day ku ca nekk yaa nga naan sa morom yow ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Sonko day ah naxarlu nañ jëf ji nga xam ne moom la Doudou Ka mi la def ba jam kenn ca ñoom paaka laa la wax dab kenn loxoom toj bopp troisième ñi ànd ak Doudou Ka nee nañ luy njiig waa Sonko ñaak Biram Souleye waaw nee ku leen ko sambañ ngeen saañ ko ko ba mu neex ay pour lu ñaaw attaque bu lâche ak barbar la ñu dé élection locale yi ñëwagul sax am ñu commencé di loru lé te Ziguinchor ndaxte dina tuuru na fa démb benn garde corps u Ousmane Sonko bu tudd Diaw la ñu gaañ ca nopp laa la wax Ali Badji ñu jam ko Ismaïla Daffé am gaañu-gaañu geneenu ndaw ñu damb loxoom waa Pastef bu Ziguinchor nee nañ œil pour œil dent pour dent ku leen def daal fayu leen l'observateur ne fitnaay politique googee am te Ziguinchor waaw Doudou Ka nee lii daal bu amee Ousmane Sonko la neex la nee na leen ci ñoo xam ne kon am na ñoo ay gaañu gaañu laa wax ci waa Pastef waaw waaye ña ànd ak Sonko ña ànd ak Doudou Ka yëpp ña ngay wax de parce que ña ànd ak Doudou Sonko moo leen provoqué yéewa Samba libération ey mbir ma nag mujj naa kon te Ziguinchor dégénéré na am na benn militant Pastef boo xam ne dañ koo jam allahu akbar la ilaha illallah balu fetal ya tàkk na démb laa la wax Alassane Diédhiou Pastef waaw nee na ay nervi yu Doudou Ka ñoo ñu attaqué te Sonko mi ngi doon amal ab ndaje ak waa UNACOIS ca bu kot la waaw waaye ñu àndal Doudou Ka day nee nañ c'est pas vrai gars yi dañuy taafantaloo ay réunion laa la wax ngir songu kër ñoom Doudou Ka saasa la alaaji Malick Gakou daal di bind xam le ne lii jëf ju ñaaw la agression sauvage de doy Malick alaaji Malick Gakou ne maa wax li lée te nguur ñaaw ay jëfu mala une barbarie du pouvoir te loolee nag ñu ngi koy naqarlu parce que mbir mi nag yegg na foo xam ne ah cate na lii kenn xamul lan la wal fajri ak laas te Sonko de dañ koo song kon te Ziguinchor am ci ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu-gaañu te élection maire yi lée enquête yéene dee def na enquête nag yoo xam ne ba léegi nii jugee wuñ fa ak ñoo ñeent fukki ak ñeent laa la na ko ca mairie bu mbayeen gee xoolal nguu siis mairie nguu juuf 90 ba léegi ma nga fa laa la wax daanaka fanweeri ak ñaar léegi mu mat ko de li tax nag ñuy toog foofee toog ba mais wàllum nga ñëw toog ci ba sangu baa doola bi ci taabalu buur daal di fay reeree wala añee fa kay yow nga nekk PS ni lée fanweeri at ak ñaar léegi mu mat ko de ba mu nekkee maire rek Omar Sarr a ni lée daga Thiès ba léegi nii lay Alioune Mar a ngi di 2002 ba léegi nii lay critique a kaane waaye xoolal ma candidat yi ah nguur gi kenn liggéeyatul laa la wax rawatina nag ñi alal ju baree bare commencé nañ koo xëpp seeni bureau ñoom responsable yi nekk au premier plan suñu réew mi nag fi mu nekk ci ab campagne électorale boo xam maar day taal intérêt wu réew mi te ko nee dossiers baree laa lay wax nii ci république problème bi ay membre Pastef ak taxawu Sénégal dañoo lànk ne Bamba Fall mi de duñ ko jiital waaye Khalifa Sall day pare na de pare na de ngir forcer leen Bamba Fall laa la wax ñëf yéeni kaa gi ne élection locale yooyee ca Podor waaw Harouna Gallo Ba daal dinañ koy investir ca Gamadi Saare waaw waaw dama la Harouna Gallo Ba moom la waa Gamadi Saare moomee ne mooy nekk seen maire Moussa Tine waaw nee coow yi ngeen gis ci 24 heures du dara lu tey termine yéene kaay ne xoolal yaa xam mbay attaqué na punkal yi ànd ak la wax parce yaa xam mbay song na Aïssata Tall Sall song Mame Mbaye Niang song Abdoulaye Diouf Sarr song Amadou Ba na Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi wala Fouta Weli yow ci jamono joo xam ne kon suñ politiciens yaa ngay waa ate banxaas la ca Sénélec de ñoom day commencé nañ de la faim looloo tax nag boobaa maar nee nañu luy njéeg Pape Demba Bitèye mi lee nañ lu tolloog wala jàpp fukki atu yàlla la ñuy sàkku nag leen seenu xaalis fay seenu xaalis laa wax te ñu leen ay contrat de travail ñu mën di am ay sociaux ngir préparer seeni retraite waaw le témoin yéene kaa ne ubbi télécole bi day waaye mbaadu ubbi tey tey en tout cas jàngalekat yi ñi ngi commencé syndicaliste ñi ngi commencé menacé tey jàng tey kii koy tey libération yéene kaa ne coowal ba nga xam ne dañ sika ba ko jënd waaw preuve wane ne kon wàllum banditisme ndekete génnee nañ ko ca kees ya allahu akbar pour avancer rek de laataa ñoo signé alerte yéene kaay ne Serigne Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma waaw dañu ko tuumaal wàllum détournement moo tax it mi ngi xam le ne dana porté plainte ne kii di Cheikh Massamba Mbacké Lassane Ba ca yàlla <laughs> plainte yi temps yi bëri na de waaye plainte de ak lu mu bari bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri te kii naan suñu pétrole bi plaintuñ ko plainte yi des na nañ xam ne suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal